yow yow yow yow booy booy Gambien yi Gambien. Gambien yi daal ñoo ñu yëpp. moo ngi noonu parlons de l' bi nga xam ne nii fu mu toll nii euh, Sénégal yi yëpp fu mu toll nii moom la ñu waxtaanee moo xam grand place yi moo xam salon yi wala sax si statut yeeg wala whatsapp yeeg Instagram tweet lépp. fépp foo dem euh, ñu ngi waxtaanee ñaari jëmm yi ci diggante kii di Wally Ballago Seck ak kii di Amy Léa rumeur la ou pas en tout cas ak lu si mënti doon histoire bi ngi gën a yëngatu ñi ne nañ waaye takk na ba pare sax ñii ne maanaam dimanche bi incha allahu rabi la koy takk ñu bëri tamit naan mariage bi kañ la en tout cas yéen ni may woo tax du téléphone kañ la kañ la kañ la en tout cas tey moom gëm naa ni Ousmane dana si wax lu leer parce que am na su leer ak lu mënti am mooy weekend bi incha allahu rabi mariage bu doy waar dina am ci Sénégal est-ce que Wally sekk dafa na a trahir comme ni ko sénégal yi di waxee par trahison mais ñu bëri jàppee takk deuxième femme wala takk kii di Amy Léa bu fekkee ni dina am wala fekkee am na trahison lay doon si kii di jabaram li nga xam ne nii mooy soxna Aïda est-ce que c'est ça. waa li ma ci jàngat mooy pour lan Wally war a takk deuxième femme mu doon trahison ah. dama koy laaj. Hmm. jigéen ñi lañ yaakaar. Ah, jigéen ñi pour ñoom pour ñoom boo takkee boo nekkee sa aawa nga toog ba saag takk ñaareel rek trahison la yéen ñuy yéen ñu nekk yéen ñuy mu ngeen hmm. bokk yéen tamit si waxtaan bi ngeen commenté ngeen wax seen xaat ñu tamit ñu delloo la maanaam ñu daal ñu pelloo ak yéen. loolu lay laaj quoi. Hmm. pour loon Wally Seck war a takk ñaareel mu doon trahison. ah Wally Wally diineem da ko may mu takk benn ñaar ñett ba ñeent. ne ca charte na mu waree aw mu aw fa mhm. amilaya jigéen la toll na ci sëy toll na ci ñu bëgg ko mhm. amilaya jombul waali waali jombul amilaya mhm. ndax ñoom ñaar ñëpp ay doomu dëkk bi leen juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi kon ku ci nekk boo takkee sa morom ci dëkk bi yàlla na am na wala amul xamuma ci dara bu ma dugal xëy na yow mi uti sa information wala dégg ko mm. ba ñëw teg ko ci people bi comme ni ñu koy defee saa su ne ngir ñu wax ci mm-hmm. man xaw ma ko waali takk ak xaw ma ko waali takkul en tout cas soxna ay dara takk nañ ko te mooy première dame comme ni ko ñëw ëmb waxee soxna ay dara daal takk nañ ko mu ngi ci këram di sëy mm-hmm. déggoo ko ci dara non teey na am nay teggin yaru na baax na uuf na njabootuwaali Waali Sekk mm-hmm. ndeyam gërëm na ko baayam gërëm na ko te ay goroom it gërëm nañ ko ndax coon mm-hmm. sekk gërëm na soxna ay dara di ko ñaanal suñu borom xaare ko àjjana yéexinu te jaaga barki démb moo njaay ñun ñëpp gis neen gërëm na ko it bay jooy kon moom soxna ay dara fi mu teg tànkam foofu la bu mu ko bàyyi te nekk na ci lu mu war a nekk te mu ngi def it li mu war a def mhm. gannaaw nag Wally Seck war a takk njaareer mhm. c'est normal am na droit bi am na droit bi te mën na ko parce li nga wax ni moom la Bijou Ngoné waxoon benn bis ah. ma ko xel laaj ne ko est waaye dafa takk ou mu ni waali góor yàlla la te ñoom sax bu ñuy xas bay bu ñu demee bay takk duñ takk takk suuf te bu ñuy takk ñëpp lañ koy yëgal donk daal di tàkk loolu wax jooju yàgg na. macha allah saam damay dëgg rek ngay wax. ci laa doon ñëw waali fi benn tàppet même waali bu tàppetoon mënul takk takk suuf te du jug kaw. man de man su jigéen kenn na takk takk suuf takk takk la danga may takk mbaa nga ba ma. Mm-hmm. ma nit ma doon góor di takk maa takkul takk suuf sama soxna nga ñëpp dañ koy xam baama bala mm-hmm. takk suuf foo ko dégg ku jigéen ki jubul ku góor ki jubul mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp jubuñu farata loo ci nëbb mm-hmm. lu la dagan nga mu dagan la nga mu dagan mu dagan la ngeen demee muy ku góor ki di ko jigéen ki ngeen dem mhm. ba war fas am ci li nga xamante ni mooy li ngeen di dund ay nëbboo am ci rek yow ku jigéen ki juboo ku góor ki tamit jubul mhm. mais foo bëgg ñëw mooy est-ce que namu leen namu namu leen lu baax namu leen lu baax mais pourquoi dama yàgg di wax parce que dama naan à chaque fois que sénégalais euh, maanaam du sos peut-être day yokk le fait que ñu maanaam relation Wally Seck am na ak relation ak kii di Amélia est-ce que nekkul nga xam ne di bu wu dëgg la. mais mais bu doon dëgg dafa war a doon dëgg. parce que lu fekk fait que pour pourquoi moo xam parce que dañu gis Wally Seck am na ay son yu bëri nga xam ne def na ko mais xaytu Amélia yëpp bokk nañ si. buñ ah. jaawale de buñ jaawale. non attends attends maa maa ngi ñëw voilà waaw continue. buñ jaawale de dafa lëkkaloo ak waa Mborodi ñu jox ko seeni actrice ñu tournel ko clip yi. mais du benn clip boobu. wax moo tax maanaam. clip clip clip euh, kii bi rek maanaam wurus bi rek mais yeneen clip yu bëri eya gis nga xaytu Amelia moo si nekk. waaw mu bu ñu doon lim presque def na trois clip yi nga xam ne ay xaytam. ñoo si nekk est-ce que du loolu mooy indi polémique bi. ñoom du ñoon ay xaritam. ba Amelia juddoo ba màgg ñooñu du ñoon ay xaritam production moo leen boole bañ doon ay xarit. Mhm. ànd ju bañuy ndaw ba léegi. dañoo bokk téléfilm bokk maison de production ñu boole leen ci benn film. Mhm. ñu gis ni ñoom ñu nekk day indi tawféex ñu dem ba doon ay xarit. Mhm. mais du xarit googu leen judduwaale ànd ci màgg ci yaru ci. Mhm. production moo leen boole waaye production boobu it moo lëkkaloog faramarin musique muy waa Mboroli. seeni actrice tournée fa ay clip mais paa jëmmi ame layaa moo tax na leer. de. man de am na ay information yoo xam ne mënuma ko wax si bi. waaw <laughs> mais su ma dëggoon fi dëgg. lëkkaloo la mënuma ko wax mais en yàgg nañu tudd seen. diggante ñàkk tudd seen diggante Wally moo tey moo tey moo tey ba teyaat toog. mais Wally na bu fekkee da ko neexee mu ne. mu def damay taxal ku saf. yoonu kenn nekku ci am yaay bu ko neexee bëgg ku ko neex yoonu kenn nekku ci Wally am na droit nopp ko neex am na droit ba am ñeenti soxna yoonu soxna ay dara nekku ci yoonu Alioune sekk nekku ci yoonu keneen ak keneen ak keneen nekku ci parce que ci droit wam ni diineem sant na ko ko bu ko posé mu ne xayru ami layaa am na droit moom moom xolam bëgg waale Seck nopp ko bay bërëngu bu see moom yàlla na wàcc na bu ñu fàtt sa biir wax dama dégg dafa mel ne yow dafa fu mu toll nii dafa leer ne waa Seck dina ko takk na ko takk sax nag coow lu jeex. waaw na ko mais Waly Seck bu ko defee def lu gàtt xel. lu neex lu saf lu cuq nga xam ne waalee bëgg lu xees. lu fat su boobaa am ay jigéen ñu ay ñu bëri ñu mu trahir tamit. lu fat yaakaaroon. trahir yaay dugal Waly Seck. non su ma nee ñu mu trahir mooy ça veut dire que ñu bëri bëggoon nañ ko bëgg nañ mu gars yi Waly Seck takk la ñaareel. ñu nekk si rek daa bëri daal yow daal. am ñoo xam ne ñoo ngi dem soirée Waly Seck pour gis Waly Seck pour Waly Seck takk leen. Ah, mooy yooyu gis naa ko ah, ok. kon ñu bari daal dañoo. gisoo benn xale bu jigéen boo xam ne chaque jour ñu tudd ko ne dafa nopp Wally Seck moo tax muy dem si yenn soirée am di ko toog fu mu mënti dem. Hmm. waaw ah baax na Wally mënul ñamal ñëpp de. nee na famille Ama Baldé li muy lu seen yoon si mariage Wally Seck ak kooku noonu. kooku noonu mooy en tout cas en tout cas mënul ñamal ñëpp. mais ñeent baax na. Wally mënta ñamal ñëpp de. mais ñeent mën na ko. waaw ah, mën na ñamal ñeent. donc waaye mën na ñamal ñëpp. Maria Sine may sa biigi may sa biigi Maria riche. yaa doy waar dëkk bi di la xëccoo mais que est du tamit affaire de. su ma. maarwaay. ce que nekkul affaire de buzz pour def promotion album bi wala tamit coow gars yi yëkkatiwaat coow pour affaire loolu est du loolu. xaw ma buzz xaw ma ñàkk boos boos xaw ma ñàkk boos waaye Wally mënta ñamal ñëpp. mën ta ñaman ñëpp de bivon nekk leen ay nit waaw bivon rek bëggu góor alors Amiléa ak Wally Ballago Seck ñu bëri ñu ngi wax maanaam seen mariage est-ce que c'est vrai ou pas en tout cas ak ñi nga xam ne ni jege nañ bu baax a baax balaa Ballago Seck jot nañ si jot ay quelques personne mais lu ñu ci wax ñoom mooy ça veut que mariage boobu amul si diggante kii di Amiléa ak kii di balaa ko Seck mais tamit est-ce que Wally Seck buy def yéen yi ñëpp lay jégal est-ce que doon doon surprise si ñoom surprise ñoom wala sax est-ce que tamit maanaam nekk loo xam ne dañ koy nëbb bàyyi tamit ba lépp yem public bi daal di koy gisandoo ñoom ñëpp en tout cas su ma si doon daal mooy ñu bëri jàpp nañ ni maanaam mariage boobu amul waaye mariage bi nga xam ne nii Sénégal yu bëri tamit jàpp na ni euh, boo motul dina am maanaam si weekend bi de mi kenn ki nga xam ne nii actrice la actrice la bi nga ah, à